asalaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV ginnaaw ba ma leen nuyoo di nuyu ñu ma feggool Mbaye Babacar sama bu bool bool bi Assane Waalo. oui Ndeye ah, maa ngi leen nuyu bu baax a baax fay bu baax a baax a baax. Mbaye doo doo ma fay wala sa ndékki bi dañoo suurul. Eh, jërëjëf Ndeye Mbacke maa ngi lay nuyu maa ngi nii toog sa tub ci Yacine Yane bi borom bañu daaw ma béegi Abdoulaye ma féere néegi ceeñ kuy nëbb du ko wax nuyu naa bu baax a baax suñu mbokk internet yi nga xamante ne bii ñu ngi ñuy topp fii ci Leewtoo TV mbégte ak contentement la ñuy am heure bu ñu toogee ngir jukkil leen li nga xamante ne bii moo gën a fës ci ëttu yéenekaay yi nga xam ne ci làmb rek la ñuy bind. ci loolu lañ jëm tey jeudi 21 janvier 2021 tey bisu daa daa ala daw mere. suñu làmb xëy xëyeeg nga xam te ni mooy Zallo Zallo liste les 5 atouts de Balla gay de B52 de Mbour. Euh, ni nga ko waxee noonu la ndey Mbacke Jallo mi nga xamante ne bii moom moo jëloon drapeau du chef de l'État en 1996 ba mu daanee gannaaw ba mu daanee Yaxya Diop Yékini ca plaqué bu rëy boobu nga xam ne kenn dootu ko fàtte ñëw na ci combat bi nga xam ne mooy dox ci diggante Balla Gaye 2 ak ki nga xamante ne bii euh, moom mooy euh, Bombardier ñëw ak ñun ci juróomi ponk ponk juróomi poñ yi nga xamante ne bii moom la ku ci nekk mëne dëgg la Babacar Zallo ñëw na listé cinq atout yu ballagay de ak B52 mii di bombardier wax na ci wàllu force staff yi technique ak mystique yu ñaari mbër yooyu wàllu staff li mu ci wax wala wàllu force nee na bombardier est né avec la force maanaam bombardier dafa juddu ak doole mbër mu am doole la te daf ko judduwaale mais Balla Gaye moom nee na musculation bu rafet la am wàllu staff nee na cinquante 52 dafa perte euh, ombrom bii di Pape Dia gannaaw ba mu perte Pape Dia perte na également ancien manager am boobu di Yéri Jaxate moo tax nee na staffu Bombardier daal xaw a te demee noonu moo tax benn not set sur 10 la ko may. nee na Bombardier moom euh, nee na Balla Gaye moom benn staff bu dëgër la am am na Aziz Ndiaye ci côté am na papaam muy ruubal les am na ñeneen également ñu koy euh, toppatoo ci wàllu staff boobu moo tax Balla moo ko gën a taxaw ci wàllu staff. wax na également si côté mystique nee ku gëm mystique la te du ko fooyee nee na gay Gaye moom Casamance lay dem ci village yu sori ya foofu lay puiser ay mystique am wax na également si eh, bagaar nee na gay Gaye bagarre de rue lay def mais boo jee moom euh, kaay xeex moo ko gënal kaay lekk. kaay xeex moo ko gënal kaay lekk dañu ñëw ci Samba Fall Sam Sambay Fall promoteur de lutte nee na que l'arène s'unisse pour défendre ses intérêts bay a jërëjëf Ndeye Mbacke Sambay Fall ñëw na ci li nga xamante ne bii moom mooy suñu làmb nee na euh, ñun nitu làmb yi. dañoo war a booloo nekk benn ngir défendre suñu ay intérêt ci wàllu làmb ji ndax moom li mu jàpp mooy mbooloo mooy doole. dëgg la Babacar Sambaay Fall benn promoteur la moom moo tëgg combat Colifayda ak euh, général bu fas tëgg na yeneen combat moom daal li mu xëy wax nee ne waa askanu làmb dañoo war a booloo xàccandoo dóorandoo pour défendre intérêt làmb sinon rek euh, ak situation bi ñu nekk loolu rek moo leen ciy génnee. ci ki nga xam ne ci leen jëm mooy coach coach Badiong nee na expert en lutte en combat. nee na Reug am na énorme chance gagné li nga xam te ne nii mooy combat bi dox diggante mag Alain Ngalani. Alain Ngalani Alain Ngalani. jaboo moom nee na euh, Reug Reug am na ay chance yu bari pour daan ki nga xamante ne bii moom mooy Alain Ngalani combat boobu war a amee fële ca Singapour incha allah bu ci yàlla àndee vendredi le 22 janvier. noonu la Babacar combat boobu suba lay am sa Singapour bu 22 de 22 janvier 2021 à partir de 14h euh, coach su jamono nag lu wax mooy que ne Reug Reug am na ay chance yu bëri pour euh, daane kooku wala gagné kooku di euh, Pierre Alain Ngalani di Cameroun boobu. léegi combat boobu nee na bu ko gañee dina ko ubbil porte yu bëree bëree bëri ndax MMA bi fola moo xam ne ni forme foo mu bëri xaalis la. ba léegi suñu làmb ñëw na ci nga xam te ne mooy Reug Reug depuis Singapour je suis confiant à 100% di dara xelu nga xam ne nii mooy supporter am yi. nee na xelam dal na te it bëgg na xeli xeli supporter yi dal bëgg na xelu Sénégal yëpp dal ndax am na préparation bu baax te mu ngi ci ay conditions yu baax moom daal euh, li muy xaar rek mooy arbitre soufflé mu won li mu mëne ki nga xamante ne bii mooy Pierre Ngalani. je suis confiant à cent pour cent noonu la ko Reug Reug waxee. Uh-huh. maanaam mi ngi dem ci combat bi ak confiance bu mat. bu mat sëkk nee na agsi na bu baax ci Singapour dëkk bu neex la te dara desul lu dul combat bi ñëw rek mu jëflanteeg adversaire am bi gagné ko ñibbisiwaat Sénégal. ca kañ fañ jëm nag mooy Thiès manque d'infrastructure et promoteur l'horizon de l'horizon bousee des lutteurs de Thiès maanaam fàttali nañu daal. waaw journal bi ñëw euh, yóbbu ñu fële ca Thiès benn dëkk ñaari gar benn aéroport di ñu xamal nañ Thiès li ñuy ñaxtu mooy euh, manque ay jumtukaay ya nga xamante ne bii lu ci mel ni stade wala arène bu ñu mën di tëggee ay làmb wante manque ay promoteur ya nga xamante ne bii mën nañuy tëgg ay làmb xale yi di tooyal seen xaftaan ëllëg bu lëndëm la journal bi gisal Thiès boobu ndax Thiès euh, ay mbër ñi ngi fa mais seen infrastructure yi dafa manqué ndax stade Maniang Soumaré bu fa nekk dañ koy réfectionné euh, am na euh, déficit également de promoteur Sidi Diakhaté rek moo fa nekk yeneen promoteurs yi amul doole pour tëgg yenn combat looloo tax journal bi ne avenir u mbër yu nekk sa Thiès daal leerul dara la leerul ba leerul mooy li nga xamante ne mooy mbas bi révolté par le long pour cause Covid 19 mbas bi moo lëmb àdduna bi yëpp dugg def dugg def prêt à migrer en Gambie pour compétir mbër yaa ngay daw de. dugg def moo moo wax loolu nee na li nga xamante ne bii moom mooy euh, toogaay bi metti na te it euh, am na ci li nga xamante ne bii moom mooy jeexi jaaxa nee na dàqul takk ay dëbësam daal di dugg fële ca Gambia ngir euh, daani fa dooleem wala ngir bëree ji fa. dëgg la Babacar dugg def benn mbër la bu nekk ci écurie xam sa cosaan bu nekk ci Pikine moom nag lu ko final moom mooy chômage bu yàgg bi ak Covid 19 bi nga xam ne nii 10 mois mi ngi nii. moo tax kenn mënul bëre moom looloo ko final de telle sorte ko mu ne su lii dakul dina dem Gambie immigré fa pour euh, bëre. immigré pour bëre suñu làmb dikkaat na ci nga xam te ne mooy waa Mbour nee na quand l'union des écuries de Mbour kañ la waa Mbour dajaloo doon benn. mu mel ni journal bi dafa samp laaj. ne écuries yi nekk Mbour kañ la ñuy booloo ngir nekk benn ndax remarque bi mu def mooy que écuries yi bëri nañ ba pare te daanaka écuries yi new doole kese ñoo fa nekk daanaka. à quand l'union des écuries de Mbour noonu la ko journal bi laajee nee na kañ la écuries yooyu di dajalewu nekk benn say pour euh, boole seen doole euh, mën a dugg ci làmb ji ndax euh, écuries yi bëri na fa yëpp Bombardier am na fa écurie Pakala am na fa Tyson Tyson Junior ak wala Tyson gin ngi neew ak Pakala ñoom ñëpp am nañ fa ay écurie te ñoom nag jot na ñu boole seen i doole nekk benn écurie. l'union fait la force ki nga xam ne mooy Valdo valse entre Dakar et Bassoul. kooku de mu ngi jaabante wu di xaar làmb ji ah, mu mel ni Valdo mi ngi jaa mu ngi jaabante diggante Dakar ak Baasul di dëkku cosaanam ba nga xamante ne bii fa la fekk baax baax daal di ko fay fekk gannaaw ba kombaam ak Amad Dem taxawee nga xam ne mbas mi dafa ñëw mbasaale ko yóbbaale ko ah, ba ba nga xamante ne bii dem na ba combat bi des ñaari fan jàpp ñetti fan lii di Covid 19 bi daal di yegg si. Valdo di poulain Tyson sa bul faale. moom nag euh, journal bi nee na mi ngi valsé ci diggante dakaar ak Bassoul boobu nga xam ne mooy dëkkam Valdo nag war na dajeek amee dem combat bi Linguère la waroon amee sama dëkk le 8 mars bu li passé mais mbas ma dikk ñu euh, annulé ko ba beneen yoon euh, Yaaba Ndiaye promoteur bu boobu jiite Capi Production moom moo ko tëggoon fa ñu jeexale ci journal suñu làmb nga xam ne mu ngi xëy annonce ñu nouvelle bu naqari kii di Modou Yacine ne plus génn àdduna ginnaaw mardi bi mu ne Modou Yacine génn na àdduna gannaaw mardi bi passé xanaa Assane ñu koy ñaanal rek suñu borom yóbbu ko ci arjana yu kawe barke Seydina Mohamed. inna lillahi wa inna ilayhi rajihoon loolu la ñu wax Modou Yacine journal bi xëy tàggee ñu ko moom mi ngi nekkoon ci écurie Guy Mouride moom mi ngi décédé mardi bi passé bi muy gaañu nag amoon na 34 ans. suul nañ ko ci jour boobu ci euh, sëg yu nekk ci Rufisque euh, loolu la ko journal bi waxee. di ko ñaanal yàlla xaaree ko aljana gën a kawe yi. allahumma amiin. fañu dem nag mooy record record mi xëy xëyee Pikine mbooloo nee na kër style de Pikine mbooloo ginnaaw ba mu amee 19 victoires 22 défaites ci cinq dernières saisons yi ñu mujj génn. mu mel ni pikin mbooloo ñu ngi ci ay jafe-jafe euh, mu ne kan moo fa des xanaa ñu mën cee jàpp tonnerre ak kii di Cobra 2 ñoom li ñu gis mooy neexle wuñu ci làmb ji seen affaire daal doxul ci li nga xamante ne bii moom mooy biir arène bi. bilan bu catastrophique la Pikine mbooloo am ndax cinq dernières saisons yi am nañ 41 combats. 19 victoires 22 défaites loolu la bilan boobu loonu def euh, tonnerre mi nga xam ne ni moom mooy seen euh, leader moom nee na euh, tonnerre na grande pli ndax 5 ans yooyu am na ci 3 combats benn 3 combats benn victoire rek la ciy am ci trois combats yooyu keneen kii di Cobra 2 également mu ne mi ngi ci danger ndax benn combat la am ñeent yi ci des yëpp saison plance la ko def. ba léegi record le Sénégal entre huis clos et interdiction. quand l'arène déménage en Gambie làmb jaa ngay dem Gambie de. mu mel ni làmb jaa ngay takk ay dëbësam daal di toxu Gambie euh, li koy dëggal mooy euh, Leyti Leyti ndox mi nga xamante ne bii promoteur la tëggoon mbappat mu am solo foofu ca am ndalaay euh, mais li ci gën a doy waar nag mooy mbappat mi bañ ko tëggee amoon na li nga xamante ne bii mooy ñeent fukki mbër ak juróom-ñaar maanaam 47 litres mais li ci gën a yéeme mooy juróomi Gambien kese ci bokk. ñeent fukki mbër yi ak ñaar ñaar yëpp fii lañ bàyyeekoo ci Sénégal est-ce que làmb ji toxawul Gambie. ni nga ko waxee noonu la Babacar comme que làmb ji instant yi moom dañ ko tëj euh, ministre bu joxeegut aval pour que ñu ubbi ko mbër yi moom solution bu ñu gis mooy dem Gambie bëree fa moo tax samedi bi passé Leyti ñe Leyti Ndong tëgg na fa benn tournoi tournoi boobu nag amoon na 47 lutteurs ni nga ko waxee 5 yi rek ñoom ñoo nekk Gambien tournoi boobu Pape Thiam moo ko jël moo daane final euh, mbër mi di euh, doomu Bargny. ñoo gisandoo ah day des ba léegi fi nga xam ne mooy record fa la ñuy tëjee mu ñëw ci MMA rëg-rëg à Singapour je suis venu défendre les couleurs du Sénégal rëg-rëg nee na moom bare na li nga xam te ni nee na moom dafa ñëw ngir siggil Sénégal ngir sagal Sénégal wante ngir gañe ki nga xamante ne bi moom mooy euh, adversaire am bi mu war a jàkkaar lool di euh, Pierre Ngalani moom nag lim ñu xamal fa mu nekk nee na pare na ci condition yëpp parce que disposition yi mu nekk baax na wante nee na euh, Singapour dëkk bu neex la je suis pour défendre lee couleurs di Sénégal noonu ñu la ko waxee c'est-à-dire ñëwul pour en tant que rek Reug wala écurie Thiaroye Cap Vert non dafa dem euh, bëre ji ak couleuru Sénégal waaye nag mi ngi tàllal loxo sénégalais yépp nee na ñu ñaanal ko ndax mu mën am ndam ci combat bi su amee ndam Sénégal yépp am ndam. nañ ko ñaanal mu am ndam ginnaaw couleuru Sénégal lay défendre ñun ñëpp ay sénégalais Reug Reug yàlla la yàlla may ndam lu rëy rëy rëy. fa nañu jaaree ndar xibaar yi di remercier ñi ma feggool ku ci mel ni Baye Babacar sama bool bool. dëgg la maa ngi nii kontaanee naa la bu baax a baax a baax. jërëjëf Ndeye Mbacke ñu ngi lay jaajëfal yow tamit di tàggatoo ak suñu mbokk internet yi tàggatoo ba nga xamante ne bii du tàqalikoo wante bala may dem rek damay nuyu sama jigéen sama xarit Malo Sène fële ca Côte d'Ivoire di ko jaajëfal bu baax a baax euh, di bëgg moom wante suñu xarit bi nga xamante ne bi dañuy topp tamit chaque jour ci Leewtoo TV Moussa fay ma nga fële ca Brésil bro amal jàmm bu baax jaajëf. asalaamaaleykum jàmm. Ndeye maa ngi lay remercier ñoo bu dul jeex. maa ngi lay remercier man moom waa lingeer laay remercier sama dëkk maa ngi leen nuyu di leen remercier yéen ñëpp euh, di leen jox dig daje ba euh, suba incha allah. noonu la fa tëddee di leen gërëm di leen sant di sant ki xam ne mooy internautes yi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax équipe Leewtoo TV ñëpp di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah.